parce dafa am loo xamante ni dafa amoon ci senegal te bi mu amee ci Sénégal dafa am taxawaay bu ci amoon te lii lépp loolu moo ko moo ko waral muy coronavirus bi première vague amee au senegal Macky Sall la wane woon yoon moo raxasu moo génn wax xamal nit ñi ne corona dafa am Sénégal nañu moytu yaa ngi dégg fii may waxee. Mhm. ñu dem deuxième vague am troisième vague am ci diggante boobu. ñoom waa nguur gi ñi ngi def seen manifestation yi leen neex ni ñu ko neexee ak fi ñu ko bëggee ñi ngi fay amal seen ay manifestation joxuñu làmb sécurité joxuñu làmb ngir ñu mën a am parce que làmb mooy parent pauvre Sénégal mooy parent pauvre sport Sénégal làmb mooy ñi nga xamante ne amuñu doole làmb mooy ñi nga xamante ne ñoom dañ leen di teg métti te du ñu wax parce que ñooy lan dañoo jàpp ni làmb dafa am ñoo xamante ne dañoo jàngul ñu nekk ci seen biir te demeewul noonu bu fekkente ne président de la république dafi teg ministère des sports ministère de sports nekk fii balaa may xuus loolu ci loolu balaa ma yegsi ci loolu tuuti y a deux semaines wala y trois semaines président Macky dafa def benn tournée économique tournée économique boobu mu def bi mu ko defee fexe na moom ba arranger boppam ba arranger li nga xamante ne loolu la bëgg a def ba am sécurité sécurité bi dem dar ko mu def tournée fi mu ko bëggee ak ni mu ko bëggee ba loolu jeex. Mhm. ñu ñëw ba ci moment bi ñu ne benn événement mënatul am ci làmb parce que sécurité mënul génn sécurité munul génn ngir ñaari wala pour man ngir benn raison <coughs> wala ngir ñaari raison raison bu njëkk dañoo bëgg a aar xëy na les éléments yi nga xam ñooy def sécurité ngir feebar bi bañ leen a dal beneen bi mooy ngir làmb bañ a am HBK dafa am mais je pense pas waaw léegi may ma yeggali tuuti may ma tuuti rek ma yeggali HBK bu fekkente ne président de la république daf fi teg ministère des sports mhm. ministère des sports am démembrement boo xamante ni nii moo ko yoral làmb CNG de lutte am na loo xamante ni nii CNG moo ci war a jël responsabilité am ñu wax ko CNG bi bu fekkente ay figurant lañu ci liggéey bi ñu wax ko bu fekkente ne famille làmb dañoo doon xeex benn xeex pour CNG bi fi nekkoon jóge fi mhm. bu fi jógee pour ñii bu ñu ñëwee nii ñu toogee nii nii pour juste Alioune Sarr jóge fi te mhm. ñii bu ñu ñëwee amul benn lenn loo xamante ni nii liggéey nañu ko làmb perte na liggéey ba liggéey ba amul woon njëriñ parce que liggéey ba warul woon doon juste Alioune Sarr jóge fi liggéey bi dafa waroon doon bu fi Alioune Sarr jógee ñu am ñoo xamante ne tey dinañ fi teewal làmb mais ñii fi nekk ñu benn teew boo xamante ne dinañ ko teewal làmb HBK bu ñu respecté woon làmb bu fekkente ne lii dafay am une semaine wala deux semaines avant dinañu woo ñi nga xamante ne ñoo ŋànk làmb. mais est-ce que du pandémie bi moo bette. jekk pandémie bi bettewul de. pandémie bi mi ngi fi depuis deux ans jugul Sénégal. pandémie bi mi ngi fi depuis deux ans ñi li ñu bëgg mu am mi ngi am li ñu bëggul mu am du am te làmb la ñu mu am. ma bëgg xamal lenn ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu ay kilifa mooy làmb dafa doon ñoo xamante ne albegaay man maa gën a tuuti ci ñu nekk ci làmb te man li nekk ci sama xol bi mooy yow mii sama wéjur ma teral la teral sama yaay te loolu ci làmb laa ko yaakaar am yeneen xale yoo xamante ne dañ ko dañ ci nekk nekk ci làmb bëgg teral seen ay yaay bëgg a teral seen ay papa bu fekkente ne dañoo nekk ci làmb ñu bëgg leen a xeex ministre de la justice génn fi dem canal TV 5 dem fa toog ne ay mbër ñooy génn ci biti di def ay affaires yoo xamante non waaw non dama lay expliquer pour wane la fi ñu qualifier làmb il faut ñu jëlee fa làmb na ñu jël làmb boole ko ci li nga xamante ni mooy lu instruit lu hmm. am ci Sénégal làmb yaak des personnes instruites suñu papa Adama bopp il est instruit hmm. Père du Diagne il est instruit ñii ay bailleur lañu jël seen ay millions def ko ci làmb am na ñoo xamante ne ay bailleur lañ nekk ci beneen domaine kenn yàqalu leen hmm. kon ñi nekk ci làmb di ay bailleur dañu leen jàppale ay doomi réew mi lañ ministre ministre Matar Ba mënul recevoir wala mënul wax ak gars yi te pourtant bu làmb amee coow ministre Matar Ba day recevoir promoteurs yi. Mhm. day recevoir mbër yi. day recevoir amateurs yi. Mhm. kon nañ ñu ja bàyyiwaat xel nañ waat xel que ni ñun ay xale lañ ci noonu laay jaaree nuyu Tafa Mbër maa ngi lay nuyu. waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ma sante yàlla <laughs> julli coonant bi di gërëm sama ñaari waajur di la nuyu Modou Mbaye bu baax di nuyu bi yëpp suñu promoteur yi père Beka yi xam nga du jaañ ak suñu père membre CNG dégg naa wax ji mais man su ma déggee li xew nii man damay tiit père parce que ñun làmb lañ am amuñu métier. amuñu diplôme bu ñu làmb rëccee maanaam suñu avenir day dem day dem terre man damay jël exemple sama bopp man Tapha Mbeur maa ngi jël avance février daaw man du ma Modou Lo du ma Balla Gaye ma cinquante millions aw ma cent million un six mois may prépare benn combat ñu ne ma Covid la toogal xaar bañ amaat espoir mu des deux semaines samedi bi di ñëw bis topp nga war a bëri ñu jékki-jékki rek ñu ne téye nañ GMI te GMI police ñoom ñoo war a assurer la sécurité des personne et des bien mm-hmm. ñoom bu ñu assuré wul ñu nan la ñuy def. Mm-hmm. état bi daf ñu war a dimbali jàppale ñu. 9000 <coughs> wala 10 000 licenciés ci ay jeunes bu nekk ci biir Sénégal am yaakaar ci benn affaire muy làmb. boo demee ci géej gi ngoon gi dangay yaakaar ni Sénégal ay mbër rek a fi nekk. Mhm. boo demee ci saal yi da ngay foog ay mbër rek a fi nekk. te ñoom bu ñu leen xañee làmb fan lañ jëm te loolu dafa bokk ci insécurité dafa war a bokk ci maanaam liy jëma réew mi kanam. Mhm. bu ñu leen xañee làmb ñoom mun nañ defi leneen parce que amuñu métier amuñu diplôme. tey am na si ña nga xamante ni làmb commencé na leen raw ñoom la ñuy jël di leen fay ñu nekk ay nervi te Macky Sall bi muy def tournéem ay mbër la jël plus police Sénégal. fay leen xaalis ñuy gérer sécurité tey ñun bu ñu làmb rëccee amuñu leneen lu ñu def ministre bi ak membre làmb ji nañ génn kaasal xale yi parce que am na si ña nga xam ne am nañ seen métier mais Tapha Mbeur làmb mooy métier te Tapha Mbeur bu gën a toog am na ay kilifa CNG dañ ko fi teg pour mu yilif ñu ñun. Mhm. ministre bi teg ko pour mu nekk ci diggante président ak sport bi. Mhm. ñooñu dañoo war a jug. ne ah y' problème seen jeunesse bi ñu am nañ problème mais ñooñu bu toogee ne pat gouverneur génn wax lu ko neex GMI yi toog seen kër ñun fan lañ jëm. et puis c'est pour la première gouverneur wax te jaarul euh, euh, ci. te nga baal ma dafa am lu ñu ma yónnee léegi. dañ ma yónnee léegi not bi nga xam ni commissaire centraux yi commissaire urbain yi commissaire spéciaux yi terewuñu événement. Mm. mais dañu ni port de masque la ñu wax et que la police il s'agira notamment d'organiser des opérations ciblées au niveau des marchés, des lieux de commerce, de sport, de transport et, de, de, et des salles de spectacle. D'agir avec tact et intelligence pour éviter des incidents sur le terrain. Cela veut dire que ñun war nañu mën a def suñu lam ñu takk masque. mais non ma xam nga lan moo ma jaaxal. affaire bi comme comme Adama Adama bopp mais. décision boo xamante ci ay wax la jóge dans une république. mais loolu est-ce que ñu respecté nañu ci loolu a moom sama bopp question ñu joxee man ci loolu li ma la si bëgg laaj wala li ma bëgg a laaj borom xam-xam yéen a ñu mag est-ce que kon président de la république yëg na loolu. non la day yëg dafa war a yëg nag xam mais loolu na boo xam ne dañ ko war a yëg xam bu ndee ba ñuy jiite ñi ñoo ñoo jàkkaarloo ñoom wax ñu décision yi ñuy jël. wax ci ce qui se passe mais père président daf fi teg ñooñu pour ñu xoolal ko digganteem président mënul wàcc ci terrain bi. mais am na si ña xamante ni oo ko dañ ko war a liggéeyal mais ñu koy yàqal parce que imaginez dix mille licenciés ñëpp seen i mer ndax président ndax lan moo tere seen i mbër yu bëre loolu mi yàqal président président daf ko war a xam. dafa war a xam ni am na ñoo xamante ni dañ ko war a liggéeyal jeunesse bi waruñu ko mere te jeunesse bi commencé nañ koo mere lool. benn Tapha toog deux ans bëriwul man bu ñu waxee nañu dañ leen takk masque comme li Pape Abdou Fall wax léegi ñun suñuy supporters ay eleve ay commerçants ay nangam parcelle laa dëkk. keneen dëkk Fass keneen dëkk Pikine Tapha buy bëri dimanche élèves yi jàngiwuñ dañuy ñëw stade boo ne leen porté leen masque indi leen nangam indi leen ñëpp koy def ñëw fees del stade bi ñëw fi ëpp public Sénégal Macky Sall bu woote woon mbëri woote Macky Sall mën na bañ a gis lu bari. kon daf ñu war a jox cër. Mhm. parce que dañoo civilisé parce que am na si la nga ko def. bi Covid amee ba tey gisagul mbëri wàcc ci terrain bi. waaw nañu jàppale respecté ñu jox ñu. mais quelle est la solution je pense que la note elle est très claire. Abdou lan mooy solution. solution bi sport da attend dajaloo bi ak Covid. solution bi yéen lan ngeen mën a jël comme matukaay. non euh, euh, sama waxu démb laay waxaat. solution mënta weesu lu dul ñu bàyyi ñu organiser suñu ay làmb ci naka takk masque yi. Ah, ak parce que note baa ngi nii distanciation ak indi sécurité. indi sécurité bi. ak distanciation takk masque bi. yaa ngi dégg distanciation mën na am. indi alcool gel yi. mais nañ ñu woo ñu waxtaan déggoo ma ni la à l'entame de mes propos de mon intervention j'ai dit que espérons qu'à la sortie de cette rencontre là bu ñuy génn ci ndaje mi autorités yi woo ñu ñu toog waxtaan parce que ay kilifa la ñu. d'accord que ñu ngi investi ci làmb wala nangam ak nangam mais nous sommes des gens civilisés muy promoteur bi di amateur yi di mbër yi ay nit ñu civilisé lañ nañ ñu jox cër fàllu solution waaw solution bi Père Bécaye feebar baa ngi fi ah. comme ni ñu ko waxee ñu accepter ne que feebar bi mu ngi fi. non muy ngi fi. tamit da nga euh, ko feebar bi mi ngi fi. waaw mani feebar bi xanaa moom cible am lamb la. mais feebar bi lamb rek la cible. mais HBK feebar bi mi ngi fi saa bu coow di ñëw si kaw lamb lay dal père. feebar bi mi ngi fi mais ci ci côté solution maa ngi daw jégalu parce que fa fàllu bàyyil fàllu yeggal voilà dama nekkoon dama nekk ci fu am solo dafa am benn bis am promoteur yu tëggoon stade Demba Diop bi ñu tëggee stade Demba ñu defar plus de billets ci biir loge ba. waaw après dafa feeñ comprendre solution mën na am mën nañu exiger nombre de billets bi ñuy jaay. mën nañu ne bu stade bi dee vingt cinq mille personnes cinq mille personnes wala sept mille personnes ay dugg ñoom ñu ñëw ñu jox leen billets yi ñu jaay ko pour mu wóor bu dee Ibamar ñu ne deux mille wala trois mille personnes dugg ñu ñëw ñu jox leen billets yi ñu jaay ko la. Ibamar le 7 août le 7 le 7 août. solution ñun mën nañu am solution. Mhm. li ñuy def solution mooy su fekkee ne dañ ne ay mesures barrières day am Ibamar Diop ku ne xam la wala cinq mille. ñun mhm. pare nañ pour jël deux mille places. ci combat bi naa ci combat bi pour jël suñu messi barrière. 2000 2000 places rek. Ah, lañ soxla ah non 2000 tuuti mën nga def exemple lañ la jox pour wane leen rek bëgg ñoon ñun ñoo leen gën a bëgg. ñaareel bi mooy per Bécaye préfet Dakar suy jël décision dafa war a am fitu moom jàkkaaroog askan wi ne leen décision bii laa jël en tant que préfet Dakar waaye wëtun bàyyi nit ñi sénégalais yi ay jeunes yu ambitieux boo xoolee tey jii moo woon tëgg. ak ñoom Pape Sarr. Mhm. benn euh, booy la boo ni nii mu ngi jógee France mu ngi jógee France ci. nekk sénégalais boo xam ne nii ci Europe la nekkoon te galas ga rey boppam. dëgg la ñëw ba daa desul loolu suba la làmbam ñu annulé làmbam ñan ñoo ko annulé préfet Dakar tey jii man loolu ma dal refan suñ préfet xam nga lu mu def. Oh. annulé làmb yi ma dem ànd ak délégation pour rencontrer ko pour yóbbul ko ay masque ak ay gel yi ñu jëndoon pour yóbbu ko ci àll bi dañoo dàq préfet bi mais oh. imagine autorité préfet bu làmbaay maa ko wax. Oh. dañoo te boob ay masque lañ ko doon yóbbul ak ay sel yoo xam ne population bi la ko jox mu ngi suñu maal mais mm-hmm. mayuñu sax ñu wax waxut ñun ñaari baat la wax ñun war ñu ginnaaw dem buure mm-hmm. en tant que kilifa en tant que responsable mais bu réew mi yëpp meloon ni ñoom est-ce que réew ñu xam ne ay kilifa lañ te dañ leen dénk réew mi ñu war a réew mi ñoom ñu war a gérer réew mi il faut ñu wax ak population bi wax ak askan wi mais ñoo jël décision xam ne dañuy lor doomu aadama yi am na benn ndax lamb yi war a am démb tey ak lu mën di xew daa am ndax ñu ngi woon ci weewu combat bi mbëri dañ nañ ci coono promoteurs yi dañ ci coono jël seen xaalis investir ko ñu rey leen tey jii bu ñu xoolee dima samedi suñu père Gaston moo tëgg muy combat boy Balla Gaye ak Bombardier dimanche moom na nee na huis clos waaw moo tax ñu ne la man xam nga huis clos aussi day am laaj ñoon ñun 2000 lañ laaj man 2000 laa laaj pour di ba maar buñ demee ci dimanche bi Pape Fall moo tëgg si ta pasaw mhm. si ta pasaw ak ñii ñoo yem Père Bécaye ñoom dañoo jàpp seen ay combat ba ne presque deux semaines moo ci des wala quinze jours. def open press. ñu annulé seen koy def seen combat daaw. man Siteu Papa Sow dama koy tëgg. dama koy tëgg. incha allahu rabbi ñun dañuy tëgg ñu bëre amul sécurité. nu eggaguma foofu. Père dañuy bëre. mais as man daal jàppal ni jàppal ah. ni. Père bu ma génnee fii ci yow. maa ngi ci yoonu stade arène nationale. arène nationale ku may fekkit ci yoon wi nga may fekk ku lay fekk ci yoon wi la lay fekk am beneen manifestation boo xamante ne nii raxu moo ko taxawal. concert la. bu war a am le 31. waaw raxu depuis deux ans mi ngi topp ci. daju daju. bu njëkk bi xam nga lu ko yàq accident bu am ca stade Demba Diop seen yoon newu ci. Mhm. seen yoon newu ci de. Mhm. ñoom fii la nekk ci pla esplanade théâtre grand théâtre mhm. ñu ne leen yéen du ngeen def seen concert te parce que. stade ba am na ñoo xamante ni dañ faa gaañ mais mm. ñooñu seen yoon nekku ci léegi encore ñëwaat na mi ngi war a tëggaat le 31 ñu ne sécurité du am il a dépensé des millions bale perte na 40 millions. des millions âge parce que. 40 millions. te artiste bi musiciens yi pour mu indi leen fii 40 millions. at bii yoon bul xam ñaata la nar perte jeune la. Mm. France la nekk mm. di ñafe di góorgóorlu di liggéey pour vraiment. gérer boppam li muy def ci milieu ci niveau boobu sax dafa doy waar parce que artistes yi muy yi muy woo Sénégal ay artistes international lañu. ay artistes yu mag lañ yoo xamante à 10 millions yëkkatiwu leen. déedéet leen millions yëkkatiwu leen. xaalis a leen di yëkkati. moom it defar na ko ba fii mu toll un jeune de de la république. ñu nar a ñu nar a annulé. manifestation mu pertaat. bee na 40 millions. bii bul xam ñaata la ci nar a perte donc gouverneur bu jël décision woo ñi dépensé. et puis état bi nañuy comprendre ñi nga xam ne dañoo jël seen alal am fuñ ko dugal. nu élage. loolu tamit lu am solo li nga war a wax. balaa ñoo jël décision nañuy xool ñi nga xam jël nañ seen alal. Hmm. dem liggéey ko surtout dem ba bitim réew liggéey yi ñëw indi bëgg a investir ba dara desul lu dul ñaari fan. ñu ne la annulé na te fekk na xaalis te duñ la duñ la dédommagé ba léegi ministère de la culture dédommagé wul raxu te il la perdu plus de 40 millions c'est un jeune. loolu tamit état bi na ci bàyyi xel. mais xam nga loolu lu koy indi. il faut qu'il y une concertation. man li ma xamoon mooy les autorités sont des mandataires. donc euh, par définition ñun dañ leen a jiital ñun la ñuy liggéeyal ñun ñoo ne ci base bi nañ ñuy woo ñu toog di waxtaan pour trouver des solutions mais xam nga war a tëgg walla war a organiser walla def dara nga xëy benn bis ah. à 72 heures de l'événement ñu naan la sécurité amul ak nangam ak nangam et je te dis pas mais attends c'est frustrant donc loolu dafa metti man daal li may wax mooy nañ ñu bàyyi comp nañu autorités yi comprendre dañoo investir ay millions yu bari xamuñu dañ koo leb wala dañ koo lijjanti metti na ci promoteur metti na ci mbër yi man mëri mbër yi mënu ma leen sax siggi xool barke Cheikh na président da li coow li bari bari un mois moo des ci làmb tëj mënuma leen sax xool nañ ñu encadré ñu def ñu respecter les gestes barrières. Ah un mois moo ci des je suis pour lamb teel ñoom ñoom ñoom pour ñu xam seen capacité pour ñu xam seen capacité père <laughs> am solution. père ñoom ñu xam seen capacité un mois moo des lamb tëj solution war na am ba un mois yi jeex. mais président lim campagne ëpp na un mois. non à partir du huit huit huit août. war eh, amoon bu. Eh, campagne électorale amoon duñ ko tëj non dama ah, ne. tafaatin Tafatine ak Boy Niang. ak li foofu yëpp vraiment yooyu mais yi ci des ñu muñ. ba beneen yoon yaakaar naa ni as beeg ay Assane tëgg làmb à Njaareem. waa dem ut ay gros bras. waaw loolu est-ce que du est-ce que du c'est pas honte ci suñu réew. tey bu amoon ay blessure wala mu am leneen loo xamante ne am scandale est-ce que duñu dem moom indi ko yow yaa def lii te te fekk indil ko ay problème te jox nañ ko autorisation pour mu organiser mu dem CNG fi mu war a jaar mu jaar lii nii ñuy période bii ñu toll bu fekkee woon période campagne électorale la kenn du tere campagne campagne dañuy dem élection mais événement yi mu ngi am ci réew mi événement yaa ngi am événement yaa ngi am ci biir réew mi tey jii rek bu mag am na euh, fii xombal meeting meeting bu mag xombal vidéo yaa ngi suñu téléphone ak yeneen ak yeneen biir xombal problème bi mooy tey jii nañ ñu encadré tout kon daal lamb mooy promoteur bi respecté les gestes barrières ah, ñu encadré mooy kumba amul nday affaire bi li ci des dafa bariwul mooy kumba amul nday nañ ñu jàppale ñun jeunesse bi mbër yi nañ leen yërëm nañ leen yërëm xale yi nga xam ne ñoo war a bëre muy lamb Pape Abdou Fall di lamb beneen promoteur Mhm. investissement bi metti na xale yi seen njaboot seen i waay jur yi ñoom la ñu yaakaar ci mhm. àdduna mhm. agressé wuñu sàccuñu naruñu wuruñu kon dañ leen war a encadrer jàppale leen parce que musiba gu fi amoon police dana génn gendarmerie dana génn lijjanti ko kon nañ ñu jàppale yaakaar naa ni mbokki débat bi dégg nañ ko ah li nga xamante ni moo di ñaxtu gi rek mooy làmb li tax amul tey gouverneur moo jël décision décision boo xam ne kayit bi moom waa làmb ji gisuñu ko xëy na Pape Abdou Fall mi ngi doog a gis note bi. yaa ngi koy doog a bi fi ma toog nii lañ ma ko. envoyé lan la ko envoyé. mais note bi li mu wax. terewul dara dañu ni salle de spectacle yeeg terrain de sport yeeg marché yeeg yëpp na policiers yi veiller au respect des euh, du port. des masques mais kon pourquoi gouverneur ñu ne gouverneur. affaire baa ngi nii mën ngeen ko jël ngeen zoomé ko mu leer nañ. waaw kon yaakaar naa ne loolu. voilà. tout de suite Adama ak Buzz Pro mu ngi fi pour pay per bi. bu per view pour combattre waaw pour sama lamb waaw pay-per-view la. muy ñëwal fii ñëwal fii ñëwal fii. anamu nu mu tudd kaay ci man Mamadou abal ko micro mu ñëw taxaw nii ci sama wet ñu waxtaan tuuti moom ci Buzz Pro la nekk. Mhm. ah na nga def nan nga tudd. dëggal micro Papa Abdou Papa Abdou Papa Abdou yéen a ngi bës yaakaar naa ni miin ngeen léegi làmb léegi comprendre ngeen. Mhm. Ah, yan nan ngeen ci bëgg liggéeye ak Fallou c'est pour la première fois Fallou di def. deuxième fois deuxième fois fois. ak ban làmb. Tyson 2 Frank Tyson 2 ah Frank Tyson 2. waaw Goro Sok. xanaa rek di nuyu ñi ma fekk si plateau bi ak. il ma teel euh, non grawul waaw ah, kon defal kii nga mais bon. je crois que Macky Sall ba muy wax dafa ne woon on va vivre avec le virus waaw ah, mais waxul ne ñiy tëgg par exemple ñiy tëgg concert ñoom c'est parti wala ñiy tëgg làmb wala ñoom dafa ne ñu ñëpp dañuy dund ak virus bi kon nag je pense que warul am deux poids deux mesures mhm. ñuy jël ñi nga xam ne ñoom ñooy tëgg concert yi ñu defal leen ay privilèges bu ñu am euh, nu ñu koy tee nu ba ñu mën tëgg seen ay événement comme ni ñu ko defee mm. mais boo làmb jot par exemple je peux pas concevoir démb ñun bi jot information bi bu ñu amee yaakaar mais bi si heure boobu dina fekk làmb ji tas mais maanaam juste na juste boo xam ne nii waroon nañ fexe jël ay poser ay jalons pour permettre promoteur bi tey mu mën a réussir événement am parce que instant bii nii nag koo xam ne jóge na France ñëw investir ay millions joxe xaalis bu bëri mobiliser ay moyens yu bëri pour tëgg benn événement boo xam ne nii am na si yaakaar ngir demain mu ñëw tamit tëggaat yeneen événement nga ñëw nga nekk nekk euh, narul am waaw loolu moom yaakaar naa ne yaakaar bu tas na mhm. léegi nag pay per view moom dafa ñëw yaakaar naa ngir gën a yombal loolu ndaxte tey jii dañoo jëm si ay événement yoo xam ne c'est sur que ak troisième vague bi ni mu demee place yëpp duñ ko jël il va falloir que ñu wàññi place yi ci stade bi wàññi place yi peut-être par rapport ak rassemblement yi nar a am nit yi nar a daje léegi nag pay per view bi au moins dinañ fexe ba loolu noonu promoteur bi nar a perte si place yooyu mu nar a ñàkk ak si nit ñi nga xam ne nar nañ toog seen seetaan amateur nit simple nit ñi nga xam ne bëgg nañ seetaan làmb ji loolu noonu dina bokk si lii participer ba nga xam ne tey promoteur bi bu organiser événement am dina si mën a gisaat boppam. Mhm. au moins mu am benn revenu boo xam ne ñëw na ko mu mën si am benn satisfaction. Mhm. yaakaar naa loolu la Buzz Pro. nar ñëw à travers seen affiche. Fallou neex naa liggéeyal. waaw bu baax. wax dëgg neex yàlla moom ngi koy teg si yoon. ah moom mu ñuy teg si yoon sax moom. moom promoteur bu baax la. ba pare image qualité image bi wax ci. waaw ah. incha allah rabbi am solo euh, ay image yu mucc ayib dëgg neex yàlla ndax yaakaar naa bës ma xuloog moom mais yow dama la <laughs> mais dama xam ne depuis 2017 ba léegi mhm. alhamdulilah ñu ngi jëm kanam dëgg la gaa matalay guñu niñ ko bëggee mhm. waaye bés bu ne combat bu ne ñu ngi fexe ba tey li nga xam ne moom la spectateur bi amoon combat bi jiitu du ko am si combat bi topp ñuy gën a jëm kanam di gën a mën a améliorer qualité yi ak euh, peut-être présentation yi. di gën a mën a divertir làmb ji ba nga xam ne tey jii dina doon lu captivant. Mhm. ba nga xam ne poids ji ki jënd combat am bu ñëwee ba toog seetaan du ennuyé ba ba combat bi di jeex. ba ba mhm. ñuy tàggoo. waa diaspora bi ñu ngi may woo fan yëpp di ma laaj ñuy def pour am code. waa waa diaspora bi ñoom ñëpp même waa Sénégal it day jaar ci senaffiche point com. instant bi commencé nañoo jaay paas yi pour nit ñi nga xam ne bëgg nañu fas nañu yéene seetaan combat bi euh, si euh, senaffiche point com dangay dem si www point senaffiche point com bu fekkee ne yow mii Sénégal nga nekk da ngay day fekk nga gànnaayoo ak sa compte Orange Money boo demee si senaffiche point com am na fi ñuy bind achat ou connexion par code boo si cliquer di nga mën a dem nga jënd sa code si nga fi nga xam ne moom lañ bind acheter un code boo duggee si acheter un code da ngay topp instruction yi incha allah rabi di nga ko jënd 1000 francs lay jar bu fekkee ne Sénégal nga ne bu fekkee ne diaspora nga ne en dehors du senegal na nga am carte de crédit American Express Mastercard ak yooyu noonu yëpp wala compte PayPal boo ko amee 5 euros 5 virgule 99 euros lay jar pour képp koo xam ne nekkul Sénégal 5 virgule 99 euros yaakaar naa. mën na accessible mën na accessible pour ñëpp waaye it dina nekk benn valeur bu symbolique boo xam ne tey jii boo demee ba jënd ko ci combat bi di nga jàppale promoteur ndaxte Sénégal sénégalais mooy may sénégalais xaalis mhm. tey jii tey bu ñu jàppalee tey Pape nu tey bu ñu jàppalee Fallou Ndiaye wala Pape Abdou. Mhm. tey bu tëggee combat bu ñu ko jàppalee bu subaa dina gën a am te tëggaat mhm. yeneen combat mhm. ndaxte du def lu dul yokk cohésion bi par rapport ak li nit ñi di dundu nit ki liggéey lundi ba vendredi samedi ak dimanche soxla na au moins lu koy divertir oo xam ne dina si mën a def dara wala boo dina si mën a. fàtte stress wu jour de semaine yi nga xam ne moom la liggéey mhm. après mu mën a reprendre ay activité am comme ni mhm. mu waree yaakaar naa Père Bécaye loolu lañ mënoon leeral si par rapport ak nit ñi bëgg seetaan combat bi si seen affiche point com muy le 7 août août stade ah, Iba Mar le premier août tamit le ah. premier août tamit euh, si ta paaso ñoom ñoo war pay bi incha allah rabbi et même le 31 juillet it mhm. pour combat Balla Gaye ak euh, Gris Bombardier Bombardier ñu ngi lay gërëm di la sant am na kenn ci amateur yi ku toog fi koo xamante ni waroon na ñëw jël fi parole mhm. ah mooy an nun tuddati góorandoo yi góorandoo yi mhm. góora ñëwal nga jël fi ñaari kàddu nga wax ci li nga xamante ni moo am ci làmb ji mhm. am ngeen ci baat ndaxte yéen tam ay amateur ngeen ah da di ñëw ci làmb ji lu bare bare di ci jef seen alal ah góora kaay fii kaay fii den góora na xalaat bi nga am dégg nga waxtaan bi leen fi wax yëpp ah yéen en tant que amateur lan moo ci seen xalaat. waaw salaamaaleykum alaaji Bekaay di at assistance bi yëpp vraiment mën naa wax ni li ñu fi waroon wax yëpp wax nañ ko. Mhm. xëy na dañuy mottali rek mais di waat état bi rek message. Mhm. di leen wax ni leen làmb dafa nekk facteur de développement nekk lu nga xamante ni tey yaakaar naa ni ñi ciy jaruñu bari na. Mhm. tey bu ñu xoolee jeunesse bi nga xamante ni tey ñu ngi nekk ci autour d'une làmb vraiment di waroon na mën a dem defi ji leneen jël seen temps yëpp passé ko ci làmb mhm. ñu gis ne Covid bi jaar na fi am na subvention yoo xam ne ñu ngi ko xaar ci promoteurs yi gisuñu ko mhm. ñu gis ne ñoom aussi découragé wuñ boobu ba léegi ñu ngi jëlaat seen alal ko investiraat si làmb ñu gis taxawaay bi ñu am ci làmb li des ci làmb ji yaakaar naa bareetul un mois moo ci des matul sax un mois ñu sauver journée yi nga xamante ni moo fi des et puis tamit ñu autoriser amateurs yi ñu ñëw mbër yi ñëw promoteurs yi ñu may leen ñu eggali seen journée yi nga xamante ni tey moo des ci làmb ji vraiment parce que tamit ku xool tey ku mel ni Pape Abdou Fall mi daaw yaakaar naa bi saison bi desee bi combat am desee une semaine comme moment bii nii ci la li nga xamante ni am ñu gisaat tey jii ku mel ni Siteu ñu gis mbooloo bi muy drainer ñu gis ku mel ni Papa Sow tey jii nii soo xëyee tey seen làmb nga annulé ko fu ñu jëm te seen i dépense def nañ ko gis nañ tey suñu frère li ko dal Pape Sarr métti na trop mënoon nañ ko teel a avertir xamal ko ni ko sécurité du mën a am mu jël ay disposition mais comme ni ñu ko waxee mbër dem nañ regroupement préparé wu nañu def lañ li ñu waroon def yëpp ñu toog bañ ne suba la la veille ñu annoncé leen ne làmb du am loolu métti na trop te làmb dafa nekk facteur de développement di drainer monde boo xamante ni tey te Macky Sall bi nga xamante ni tey mooy le président de la République dafa woote apaisement ci dëkk bi ci jamono yi la passé li fi xewoon woo aussi tamit pour leen di jàppale yaakaar naa doo doo bàyyi làmb ginnaaw parce que làmb nekk na loo xamante ni sport la boo xamante ni tey li muy drainer ci monde surtout ci jeunesse bi dafa bari kon encore une fois ñu ngi message ñooy autorités yi di ko jiite ci monsieur le ministre Matar Ba nga xamante ni moo jiite sport bi di ko jiite di ko teg ci aussi tamit ki nga xamante ni tey mooy Bira Sène ñu jéem a fexe nu ñu organiser woo ba làmb ji ñi nga xamante ni tey moo ci des muy journée yi ci des ñu sauver journée yi ci des ñun message boobu rek la ñuy envoyé moment ñu ngi la joxal joxal du waa jërëjëf ah ñu gërëm leen waa nii la ndaxte Sénégal ngi nii ñun ñëpp ñoo bokk li nga xamante moom la ñuy def yaakaar naa ne débat bi mbokk yi dégg ngeen ko tey l'œil du tigre ñuy gërëm bu baax j'adore ah ci liggéey bi nga xamante ni ñoo ngi koy liggéey ci réew mi doomi réew mi lañu di bëgg réew mi tey doomi réew mi ñoo investir foofu. dëgg la kon ñu gën leen a jàppale Diamond House. ñu ngi leen di gërëm di gërëm pat foot ñoom tamit lépp ci réew mi la bokk Chips Cracks ñu ngi leen di gërëm chez Kacha Isbet bu Lonaas ñoom ñëpp ñu gërëm leen ndaxte bokk ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bii ñuy liggéey ci l'œil du tigre encore une fois sama sama sama xarit Moustapha Gueye le tigre de Fass nekku fii waajuram daanaka ndaxte yaayu maya manel yaayu mayel yaayam la ah Fambaye Fall Diop ñu ñaanalaat ko sunu yaay jooju jigéen ju baax jigéen ju am worma boo demee fekk ko fa ca lalam ba mu toog boo ñëwee balaa ngaa dem mu ñaanal la ku fay dem rek xam nga loolu ci maire boobu ah maire bu baax te it républicaine la maire bi syndicaliste bu wóor la woon ci jamono ñoom Maja Diop ba mu nekk ministre ah di jigéen ju am fulla sàmm njabootam yar leen yar bu rafet kon mayel na nga xam ne yàgg waa senegal yépp yéen a bokk tiis bi ñu ngi ñaan sunu yaay jooju ñu yóbbu ndar yàlla na ay yaxam sedd ni ko mag ñi di waxe yàlla xare ko àjjana ah loo sunu yaay ju baax ngi noonu ak ñi nga xam ne ñoo fi faatu ñëpp ci wàllu réew mi ni mu tëdde ah noonu la àdduna tëdde nag kenn dara wéyut